suite avec notre premier invité euh, Ibrahima Lissa Faye euh, bu association presse en ligne merci d'être là je pense que c'est la énième fois euh, nga ñëw ci plateau bi parce que suñu xarit la euh, suñu partenaire la nous on l'admire beaucoup euh, parce que c'est un professionnel et dafa am recul boo xamante ni moom daf ko am surtout ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni am nañu ko ci presse en ligne bi nous autres célébrités entre guillemets on nous appelle ko ñoom ñoo ko def bañ leen di critiquer d'autres disent que liberté d'expression daf leen war a permettre ñu wax euh, lépp lu ñu am comme information je pense que dama lay bàyyi Mamadou Ndiaye nga waxtaan ak moom c'est toujours un plaisir de vous recevoir euh, ci suñu plateau euh, Lissa voilà Ibrahima Lissa Faye kenn dootu ko présenter nekk na ko xam ne pionnier la fii ci presse en ligne bi fii ci Sénégal Ibrahima Lissa Faye ñu ngi lay nuyu di la di sant bu baax sa taxawaay bi fii Euh, tey li waral euh, teewaay bi mooy journée de la presse nga xamante ni ñu ngi ko taxawal depuis 1993 euh, ci la waa UNESCO daal taxawal métier journalisme ak surtout presse en ligne kan mooy première question bi rek day jiitu kan mooy journaliste en ligne en fait maa leen sant bu baax di leen gërëm et puis mois c'est toujours un plaisir renouvelé mu ñëw teew ci ci yëngu leen ci ci yeewu leen en tout cas la ngeen def am na solo trop la bonne humeur et et tout ça Je pense que c'est très important. En fait, qui dit journaliste, euh, question bi dafa may andil ay doute. parce que bu ñu jëlee loi 96 04 boobu définition dafa yaatu c'est-à-dire mooy képp koo xam ne dafay tirer ay revenus am principal de ses revenus ci exercice métier journalisme. Euh, ci euh, projet de nouveau code bi mooy maanaam koo xam ne dafa génn école def formation journalisme trois ans. génn ak diplôme am kooku mën nañ koo journaliste. Mhm. wala koo xam ne mu dem université def licence wala def maîtrise dem def stage ci benn organe pendant deux ans après jàll ci benn commission bu ñuy wax commission de validation des acquis de l' expérience. Mhm. kooku mooy journaliste. waaw kooku mooy journaliste ci projet nouveau code bi nga xam te ne mu lañ ci parce que problème yi dañoo bëri. bëri na de euh, journaliste yi ñii di ñu woowee seen journaliste bëri tellement ñu ne nag i faut que ñu. def dara def dara boobu moo indi nouveau code de la presse boobu noonu nga xam ci ne depuis 2010 ñu ngi ci ko taabal bi mais autorité yi muy bu wadd bi di bu Macky bi kenn bëggu ko voté kenn voté wu ko ba léegi ba léegi kenn bëggu ko voté et loolu moo tax jamono jii nii ngeen baal ma mais parce que ñu autoproclamé wu journaliste defe naa mu ngi bëgg a bëri mhm. non dafa dafa jéggi dayoo dix mhm. ans de télé wax ah, rajo wax ah. wax télé après man journaliste la mhm. et en plus dañu koy bàkkoo ak beaucoup d'aisance ah ça c'est remarqué mais je pense que toll na léegi toll da ngeen toll foo xamante ni ci sama bu gàtt euh, war ngeen def où sommes où allons-nous effectivement et d'ailleurs sax loolu euh, moo gën a tax euh, ñu xam ne en fait association yi Euh, bëri nañu muy y' a y' a Synpics. Mhm. y' a le CORED. Mhm. Euh, appel convention des jeunes reporters. Mhm. bi af yor affaire rajo communautaire yi. les techniciens. alors ñu ne ñun kese ñun ku nekk ci pàccam mënul régler dara. il faut ñu def maanaam benn genre jonction. boo xam ci ne vraiment dañuy attaqué affaire code la presse. ah oui ak yeneen problème mu presse bi jéem ko régler. ndaxte en fait euh, jamono jii nii. Euh, presse bi ñu ci nekk ñu ci bëri journaliste yu bëri il tire le diable par la queue. Mhm. des condition très difficiles. Mhm. et aussi organes seen moyens yi doyul. et dama doon wax aussi kii mais même CDEPS patron de presse sax ci lañ bokk. Mhm. donc juste pour dire que ne maanaam euh, depuis euh, dix ans yi nii ou même plus état bi waxul dara ci presse bi dafa mel ni presse bi ni mel ni dafa ko arrangé c'est-à-dire bordel bi am. ci métier bi ngeen baal ma. Mhm. daf ko arrangé c'est bordélique. y a du n'importe quoi y a tout. Mhm. et n'est pas Mamoudou Ibra Kane qui veut. oui ah quand même ainsi de suite mais franchement donc ñu ne nag léegi vraiment jot na ñu xeex que li nga xam ne mooy code la presse bi député yi ñoom seen bopp bu la neexee ñoo am nañ possibilité ñu amender parce que aussi loi dina assemblée rek ñu voté ko noonu bu la neexee ñu ne ñoom seen bopp ñoo jël seen responsabilité dépénalisation wala déprisonnalisation encore que sax boo liiree toutes les dispositions du nouveau code qu'on a proposé que l'État a proposé nulle part am na amul fu ñuy wax déprisonnalisation wala dépénalisation. oui man man man man li ma bëgg a wax c'est un avis perso ah. après euh, voilà mm-hmm. euh, dëkk yu bëri comme j'ai dit tanto journaliste risque de mort la fay gën a am. que risque de survie. ñoom bu leen neexee. Euh, ñu xeex pour ñu bañ a rayati journalistes yi nekk ci dëkk yooyu nga xamante ni c'est des zones rouges mhm. c'est des zone de conflit mhm. mais ñun fii Sénégal ci sama xalaat bu gàtt defe naa yéen journalistes yi dangeen ngeen toll ci assainissement raxas mhm. bëri ngeen ay mbóot bari ngeen ay jinax bëri ngeen bëri ngeen ay njugub bëri ngeen ay mbott bëri ngeen ay wànq c'est-à-dire dafa dem ba léegi même nous consommateurs nous qui vous écoutons euh, ñun auditeurs yi ñun téléspectateurs yi xamatuñu sax xametuñu kii kii qui fait dafa dem ba affaire bi dafa jaxasoo moo tax damay ñëwaat ci euh, ci sama xalaat bu gàtta mm. fi mu tollu tembe war ngeen dem ci où sommes-nous ak où allons-nous. Euh, waaw mais xam nga loolu. qui sommes-nous qui que où sommes-nous rek. boo ko répondre di nga xam qui sommes-nous. non non non xam nga loolu. je suis dafa laaj euh, Pape xam nga loolu dafa laaj mm-hmm. toog waxtaan. Mm-hmm. bënn ab bi Euh, te loolu noonu en fait moi je pense. on peut pas faire des omelettes sans ñun suñu bopp. boo xoolee organisation presse bi ñu ñu ci ñu ngi organiser ñu ngi avancé. Mm-hmm. mais ci organiser ci wu noonu il faut mm-hmm. parce que encore fois état mooy yor lu ñuy wax moom moo am pouvoir de légiférer. Mm-hmm. encore une fois l' état est lui la force bëgg bëgg bëgg te état fekk si wuñ ci. du dem fenn te aujourd'hui amul benn organisation ci presse bi nga commencé que CEDEPS commencé que CORED commencé que SYNPICS CGRS appel bu jëmul dara te da ngay jéem ba déposer du mujj fenn et donc dañu wax dëgg euh, ak loo mënti def aussi te ki nga xam te ne moo la mën a fekk si jàppale la fekk si wala jàppale la jaarale ak biir assemblée nationale wala kat mu ne lii ngeen def nii kat am na solo dañ ko kii du dem du dem te am na aussi loo xam ne lu ñu war a lu ñu war a kii la c'est vrai en fait que métier bëri nay problème euh, mais aujourd'hui li ñu naan sikkim dafa lakkandoo dëkk bi foo làmb fu nekk day metti fépp am problème fépp demee ci médecin yi ku ne sañ ngaa faj bi nga ne waaw non non boo demee ci médecin yi ay nit a ngi dee biir hôpital mhm. ñu ngi rey ay nit te kenn waxu ko kenn waxu ko mhm. nga dem ci magistrat yi xam nañ la fa xew mhm. kenn du ko wax donc en fait ñun nag dañu ne fàng. te lu ne fàng kenn du ko jeex. moo taxit bu ñu defee bu ndaw moom ñëpp moom la ñuy coow. du ñu ne it nag euh, sikkuñu. am nañ ay sikk ndaxte en fait la perfection n'est pas de ce mais lii am ba am mooy que ne nañu reconnaître suñuy problème ñu def ay proposition état bi jàppale ñu moom mi nga xam ci ne moom moo mën a jël euh, loi yóbbu ko assemblée ñu voté ko. Mm-hmm. et fexe aussi bañ koy respecté parce que aussi. li li jara <coughs> wax mooy lan mooy y en un minimum de texte Mhm. mais kenn respecte qu'il faut respecter c'est vrai que loolu itam am na on va pas se mettre là à critiquer parce oui. que bis la boo xamante ni c'est pour les journalistes ouais. je pense que xeex mhm. euh, euh, pour que euh, liberté d'expression ou liberté de presse am ci daanaka bërëbu liggéeyukaayu journalistes yëpp mhm. tu parlais de moyens il faut que tamit ñu yokk moyens yi <coughs> aide à la presse bi dafa bëri ay kumba am nday ak kumba amul nday moi j'en sais quelque chose loolu gi gën cee jóg pour defe naa bu ñu nañu fexe ba XFM wala euh, je sais pas euh, benn rajo communautaire ñu jox leen même chose même si euh, peut-être moyen de dépense yi ci organes yi bokkul mais ñu ñu yamale nag mm-hmm. ah gën leen a jàppale ci ci seen liggéey parce que développement wu média mm-hmm. day tax dëkk développé c'est ça aussi ça aussi gis nga position bi mu am ci liste bi nga xamante ni monde monde entier 180 pays ñoo ko ñoo ko ñoo ko ci Sénégal nekk toujours 65e place bi mhm. est-ce que ñun fii sant liberté la presse bu fekkee surtout ci côté internet bi ah parce que damay fàttali ne moom dafa gérer benn site bu tudd Presse Afrique Presse Afrique am na am na ci taxawaay très crédible ah très crédible man <laughs> léegi je ne regarde pas les autres sites parce que ay bëtu garmi laa yor <laughs> www.presseafrique.com léegi lii sax la ñu koo xamante ni du ku toog ci këram bind internet lu ko neex ñaari phrase ñetti nit wax lu bon ci nit est loolu am na yéen ñi nga xam ne yaa yor yow mi nga xam ne yaa dirigé appel est-ce que a ngi teg ay jéego yoo xam ne pour rek jéem a euh, bu baax ñan ñooy journaliste ak lan la ñu war bien vrai que internet c'est c'est c'est libre mais rek du rek lu waaye neex wax liberté d'expression mooy classement Reporters sans frontières mm-hmm. génn na bu yàggul dara bon Sénégal am na ay avancées mu def. li ñu mën a wax ba wax ko moom wax dëgg fa yàlla Sénégal. Mm-hmm. am na lu ñuy wax liberté d'expression. ça va ah oui am na lu ñuy wax liberté de presse liberté d'expression. Mm-hmm. <laughs> Euh, bu ma ñëwee ci wàllu presse en ligne bi. Mm-hmm. Euh, euh, bëri na jafe-jafe. chaque fois réunion de bureau dañ ci nekk di wax et fi mu nekk nii d'ailleurs on a un projet phare. parce que dañu ne liberté d'expression. liberté d'expression est consacrée par la Constitution. Mm -hmm. Également aussi euh, par l'article 19 de la charte fondamentale des, droits de l'homme. Déclaration de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme. Moom eh man jàng naa école ah nekkoon naa ISIC. je te jure non dañ doon gisee foofu effectivement. tu tu mais dama doon daw jàng bu ko wax aussi. non non non bu <laughs> ñëwee la <laughs> donc. Euh, macha euh, nekk woon ci école ba bu ñu def campagne électorale euh, man maay nekk représentant wu tel ou tel parti <laughs> yooyu bu ñu tollee ci campagne électorale. électoral moom damay ñëw jàng si tous les jours parce que ambiance la ay sabar ak ay ndënd nga naan votal leen sama candidat yow tamit dégg ngeen sama tur gàtt gàtt. oui tu disais excuse-moi c'est non non non bu solo bu solo en fait c'est c'est important parce que aussi je pense le sens de l'émission c'est aussi la bonne humeur. parce que nit ñi ñu yeewoo surtout parfois. on n'a pas envie de de stresser les exactement non non ah non c'est pas loolu moom musiba la quoi. et donc euh, ñun on est en train actuellement de travailler sur un projet de de labellisation de la presse en ligne. il le faut. parce que en fait on se dit euh, ku mu neex mën na créer site. Mm-hmm. mais quand tu veux faire la presse en ligne. Mm-hmm. il un certain nombre de de règles. Mm-hmm. respecter il faut respecter euh, pour au moins quand même nit ñi bu ñu duggee site bi ñu xam ne kat presse en ligne la ñuy suivre. mais pas en fait du n'importe quoi. où sommes-nous où man boo bëgg nit ñi di ko poser léegi parce euh, loolu noonu ça fait déjà bon trois projet pare na lépp gënoon yéexal moo doon référendum bi. pare nañ ci référendum bi donc là on va l'attaquer carrément et on mm-hmm. va travailler sur ça parce que en fait bi ñu demee Saly en novembre 2014 mm-hmm. defaroon nañ li ñuy wax charte des journalistes la presse en ligne mais gis nañ ko ne charte bi des des na kon mm-hmm. et c'est pour ça d'ailleurs que euh, des partenaires comme article 19 ak ñeneen on est de train de travailler dessus pour xool nag lañ koy gën a euh, defaree et aussi mu nekk loo xam ne lu ñuy appliquer la. Mm-hmm. lu ñuy appliquer la. Mm-hmm. et ah, léegi nag léegi loolu yëpp bu ñu ko defee. Mm-hmm. cest à en tant qu'association. on prend l'initiative de labelliser. de mettre en place une charte. mais bu dee loolu def nañ ko pare. te état bi approprié wu ko cest ñu valider ko par un arrêté. ou bien que ça fasse partie carrément du code. du am njëriñ. je pense que mooy ëpp njëriñ pour yéen professionnels yi nekk ci. Euh, euh, presse presse ligne bi may mën a. mais man si sens boobu laa bëggoon ñëw sax parce que pense que au delà de labellisation bi sax war na mën a am ay critères pour nga mun ubbi ko. parce mhm. dañuy gis ni site yu bëri doo xam sax kan moo ko moom da jékki-jékki rek nga gis benn site mu naître ñu def ay publications avec des signatures yoo xam ne xamoo sax ba xam nit bi nga xam ne moo signé. moom noonu la tudd en fait ñun moo ñu moom moo tax ñun appel ñu bëri amul lu ñu dul lu ñu dul yekk nag man mhm. amul lu ñu ma dul wax lu ñu ma kii ci kii a sonn mais ba ba ñuy ko bind yow lañ doon lakkande waaw waaw ku bind moom <laughs> amul lu ma dul yekk mais man dama ne en fait mhm. ñun appel mhm. avant ngay dugg appel cest il faut que nga respecter les critères c'est-à-dire des mises à jour régulières nga am une équipe professionnelle et vraiment tu essaies de travailler de manière professionnelle. kenn waxul ne maanaam mun nga ñëw liggéey professionnel. d'un trait comme ça. Mhm. c'est-à-dire que tu xam ne kii mi ngi tenté. Ah, et euh, yàggul dara on a accepté euh, six nouveaux sites. Mhm. comme par exemple euh, AZ Actu. Mhm. Jotaay point net. Sud-Est Info. ak Actu Prime. bon c'est des sites qui sont par. des journalistes de journalistes qui sont sérieux mhm. et qui ont investi parce que aussi presse en ligne li koy mën a dëgëral mooy maanaam nga ñëw ak investissement c'est-à-dire mhm. tu viens avec tes locaux mhm. tu viens avec une équipe rédactionnelle et qui vont sur le terrain des journalistes qui vont sur le terrain et qui produisent parce que aussi nekkul ne da ngay am site rek toog sa yeewu toog sa kaw lal jël sa machine connecté tew fu nekk nga dugg fa xëcc fii xëcc tu regardes Pape Cheikh il mm. nga def article nga def article ci moom comme tu veux ou nga xool Pape Cheikh li muy wax lépp nga jël ci benn affaire gën a kii mhm. jël rek copier nga cherché ci côté bu ndaw en tout cas loolu loolu la ñëpp di jooy c'est dommage que euh, on n'a jamais le temps de discuter ak yow lu mm. bëri euh, malheureusement mais je pense que euh, tey télévision Futur Média ci bis bi dina ci def ay taxaw gëstu on a de très grands journalistes nag on a de très bons journalistes tout à l'heure j'ai parlé de Mamoudou Ibra Kane je peux je pense citer plein d'autres Abdou Latif Coulibaly Mame Less Camara mën naa mën naa mën naa lim des centaines et des centaines de grands journalistes yoo xamante ni ñoom ñooy def def fierté euh, euh, presse bi bu dul dara yéen journalistes yi xale yi war ngeen bàyyi xel ci ñooñu. bu ngeen mhm. dee liggéey. parce que ñooñu itam fa ñu nekk bëgguñu ruus en fait. exactement voilà je reste pour finir quel sera le message pour bis bi nga xamante ni journalistes yi lañu ko jagleel surtout Ibrahima. Euh, en fait le message c'est que comme li ma waxoon ci njëlbeen mooy maanaam association yooyu noonu yëpp. Mm. muy SEDEPS di CORED. Mm-hmm. SYNPICS convention des jeunes reporters appel ak waa URAC. da day bu njëkk dañ doon organiser ku nekk doon organiser côté bi mhm. bii paa nag ñëpp bokk di organiser mhm. ñëpp mhm. tey jii nii à quelle heure donc dix heures dix heures ah? dix heures su ma su ma paree damay ñëw waaw ah. nga ñëw journaliste yi ku kii rek mën na ñëw ah fekkee si waxtaan bi et donc y a d'éminents journalistes qui feront partie du panel et aussi chaque euh, association aura en tout cas aussi a dérouler par rapport, disons, à ses convictions. je vous en prie. Vraiment, je Merci vous remercie beaucoup, beaucoup pour non, ce plateau. et c'est toujours un plaisir, en tout cas, d'être sur Yeewu Leen. Merci beaucoup. mairie xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax sama sama waay la sama xarit sa waay la bon ça ak euh, Mado ñoom ñëpp c'est un plaisir de vous suivre tous merci merci merci beaucoup on est très content ñu ngi lay gërëm bu baax Ibrahima Lissa Faye association presse en ligne donc tey Mamadou Ndiaye mooy journée euh, mondiale de la liberté de la presse alors il paraît dans le monde tous les jours tous les cinq jours mm-hmm. un professionnel des médias est tué voilà loolu tax thème renu thème thème la par exemple thème cette année bi. ñu ngi ko mm. accès ci l' accès à l' information aux libertés fondamentales c' est mm. votre droit. Mm-hmm. loolooy thème mu année bi nga xam ne mooy année 2016. ci mm-hmm. liberté de la presse ñu wax ni monde bi journaliste comme ni nga ko doon waxee sànq Pape Cheikh journaliste yi. nekkuñu ci jàmm. Mhm. chaque jour ñu ngi rey ñu ngi faat ay journalistes daaw mhm. rek. Mhm. yaa ngi gis journalistes yi ñu rey fële ci États-Unis du yàggul rek Gambie Gambie tamit euh, Gambie am na benn journaliste bu ñu fa rey mais ñi bi ci gën a doy waar mooy bi nga xam ne année am na ci année 2015 bi ñu génn mooy journalistes yi ñu rey aux États-Unis en direct ah ah ah na lu doy waar la image yooyu defoon na tour du monde ñëpp di ko li rafetlu ñu loolu wax ni métier reporter journaliste dañuy nekk sur le terrain te parfois